salaamaaleykum si internet yu Dakar Midi gannaaw bi leen nuyoo di leen siyaat di bu baax a baax a baax a baax di leen ne baal lañ ak baal nañu yàlla ñu yàlla boole baal ñu fekk ay déwén déwén tey ñoo ngi fii nga xam ne mooy Scat Urbam seet si fi ñi nga xam ne mooy waa Alfa Alfalahi ñu ñu tuddee seen bopp def te yàlla tax tey nag ñu woote woon fii nga xam ne mooy joxe ndog comme gars yi ñu koy defee ñu bëri ñu dañ koy yóbbu si prison yi ñii di ko def seen koñ tey ñu woote ñoon fii nga xam ne mooy Euh, Scat Urbam di joxe li nga xam ne mooy ndog fi ma taxaw soo gisee sama mbokku Baye Fall yi ñoo fi taxaw li segg li nga xam ne mooy café gi mais dañuy dugg si dañuy dugg si biir ànd ak sama mbokku caméraman bi rek ñu dugg laaj nga xam ne mooy Baye Fall ku baax gannaaw ba ñu nuyoo di la siyaar tey ñu gis la li nga xam ne mooy segg li nga xam ne mooy café maam Cheikh Ibra bi xool caméra salaamaaleykum ñu ngi leen di siyaar bu wér leen delloo seen waay waaw xanaa liggéey bi lii kese la rek waaw joxe yoxtu la rek waaw loolu daal lañ fi am. tey dañoo gis euh, euh, koñ yi nekk yu bëri dañuy gis ñi nga xam ne dañuy joxe li nga xam ne mooy ndogu te ku dégg ndogu euh, nit woor ba ngoon jóg ngeen joxe li nga xam ne mooy ndogu si tali yéen yéen appartient nga si am. waaw maanaam ñun maanaam man ci lima xam man murit dafa di loo xamante sëñ bi daf ñoo joxoon ndigal maanaam tuwaali abdin muridin saadi xin loxumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw addiyaat waaw maanaam yoon bi dafa nekk yoon woo xamante ne maanaam du du maanaam joxe koppar kase am wóor maanaam yoon bi dafa yaatu daal xam nga xool nit ku ku ku ko soxla nga defal ko ko. waaw loolu yëpp ci ay xeetu jaamu yàlla la moo taxoon tey ñu jëmal ko xam nga di fas yéene jox gaa ñëpp ñu ndogu di si woon nag mboolem julit waaw nii lañ ko jàppee woon début koor gi ba tey ñu nar ko jàppee nii nag saa su ne incha allahu rabbi waaw. mais looy wax euh, association bi nga xam ne moo initiative lii nga xam ne moo def li joxe ndokk li nga xam ndax ren mooy trois ans ndax ku dégg trois ans du trois mois tey trois ans yi noonu début trois ans yi tey ñu andi ko fi nga xam ne mooy koñ bi. waaw xanaa di leen féliciter rek ndax dañ di ay ndaw tamit waaw bëri na ñoo xamante ne mag nañ leen defuñu ko ñu doon ay ndaw di ko woote saa su ne waaw ndax ni nga ko waxee rek trois ans du ñetti fan du ñetti semaine du ñetti weer waaw xanaa nag. di leen jokko njal rek waaw di leen ñaanal saa borom yokk leen xéewal ba ñu koy mën di def saa su ne waaw. soo leen doon digal wala soo leen doon xelal tey loo loo leen di wax. waaw xanaa ñu jàpp taw bàyyi rek waaw yoon wi métti noonu lool nag waaw waaye jaamu yàlla moo demee noonu métti noonu lool waaye nag ñu jàpp taw bàyyi rek xam ne maanaam li gën a neex mi ngi si kanam incha allahu rabi. te après na mooy ñëw li nga xam ne mooy maajaal bi si tali bi ku romb joxe li nga xam ne mooy sa ñàkk lépp dama dégg ay waa gars yi ñu ne am na ñoo xam ne dañuy maajaal di def seen poste est ce que loolu li ngeen firnde yéen ñi nga xam ne nekk si tali bi est dëgg la. waaw maanaam maajaal moom. waaw xam nga rek wax si sax day xaw a yëngu nii loolu waaye daal lii moom maanaam du force daal maanaam bu ci nit ñi defee buñ ko buñ ci deful tamit day génn waaw maanaam lii day permettre gars yi daal ko si bëgg a rek nga jàpp si waaye forcé wuñ si kenn waaw ndax boo ko yi deful tamit gars yi xam ne maanaam ñoo bàyyi seen yitte ñoo toog fii di ko defar ñoom bu ko nit ñi deful ñoom dinañ ko def waaw pour nag ñi si des moom xam rek ku dee ak sa bàmmeel waaw ma bàyyi la nga eggal li nga xam ne mooy café gi ñu dugaat ba lay xool li nga xam ne beneen côté bi dafa mel ni kii tamit was lay defar ku baax gannaaw ba la nuyoo di la tey loo ñu mën a wax li nga xam ne mooy si ndogu bi waaw moom wax léegi sama cameraman no mu mu topp ma dugg si biir gis tamit ki toog waaw moom nee na jox kii ñoom ñoom daal lañ koy jaayante mais ma euh, seet li nga xam mooy ku baax gannaaw bañ leen nuyoo ñu fekk li fi nga xam mooy si axlu café gi tey euh, lu waral na sa teewaay fi nga xam mooy si axlu café gi tey moom dañoo ñëw fii pour suñu grande man nag sama wolof yi leerul mhm. genre je préfère m'exprimer en français mhm. donc aujourd'hui nous sommes pour notre grand dogu mhm. comme vous savez comme on vous l'a le grand c'est le jour J de du grand dogu pour Fakhat Lillah donc euh, si vous voyez tout ça toute cette attractivité c'est de beaucoup c'est Il y a beaucoup d'effets euh, derrière ça, notamment à cause de... Il y a beaucoup de gens, avant, avant nous d'abord, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui nous ont soutenus d'abord. Euh, toute, chose d'abord, c'est basé sur la confiance d'abord. On a eu la confiance des gens. C'est la troisième édition, donc... Euh, euh soo comme ni ñu koy waxee soo amee confiance da ngay am ambition tamit def le plus j'espère que j'espère que moom yéen a ngi jël plaisir moom. waaw man dama gis ne eh, li ma gis fii nii xam nga ne ay ndaw ngeen te ndaw teel a dugal li nga xam moom mooy si yàlla tey en tant que ndaw tey yan yan yan nga gis lool. ñun moom alhamdulilah la ñuy wax ñu moom ngi sant yàlla wër wër wër parce que y a beaucoup de voilà y a beaucoup voilà les nous à notre époque à notre âge du moins y autre chose qu'on peut mais on s'est dit de concentrer surtout à ce mois béni du Ramadan là ay ay choses yu baax yi en tant que jeune aussi c'est beaucoup c'est c'est c'est c'est vraiment je sais pas comment on dit c'est vraiment c'est vraiment important quoi donc ñu ngi sant yàlla rek. looy looy digal li nga xam ne ndaw ñi nga xam ne defuñu li nga xam ne li ngeen def. maa ngi leen di encourager maa ngi leen di inviter tamit ngeen je ne je ne dis pas de délaisser ce qu'ils sont en train de faire mais de de s'approcher encore de Dieu aussi. ngeen ñu genre ñu approcher un peu même bu dee je je lui dis pas d'abandonner ce qu'ils sont en train ce qu'ils sont de faire mais d'approcher de s'approcher un peu. waaw ñu ngi lay jaajëfal moom dégg ngeen lu mu wax si li nga xam ne mooy wàllum nasaraan nee dafa déggul olof. nasaraan dama bëgg sama cameraman mu topp moo si bi ñu dugg xool dugal li nga xam ne mooy euh, waa Alfalaah di def te yàlla tax ni ñu euh, initié ndax di joxe li nga xam ne mooy ndogu dafa mel ne kii nii. monsieur le président mais nañ ngay sànni rek tuuti kaddu mu wax avant ñu ñu delluwaat si moom président gannaaw bañ la nuyoo di la ziar tey loo ñu wax si li nga xam ne moom ngeen woote fii. bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp koo xam ne mu ngi si daan à travers le Medina TV. di jaaj leen jaajëf lu baax euh, Dakar Midi du moins mm-hmm. euh, di kontaan bu baax seen seet bi nga ñu seet vraiment mm-hmm. waaw faxal lii rek comme ni nga gisee rek mm-hmm. association la boo xam ne. ay ndaw ñoo boole seen biir ay ndaw ay élèves lañ soo soo gisee. man kay ba ma gisee ay xale kese laa fi gis amul mag. nga jël ñee mun nga jël ñëpp gis nga leen bu baax euh, ñoom ay xale lañ mais teewul dañoo jël lu ñu am ak lu ñu am yëpp boole pour def ci social. Euh, daf solidarité ndax l'islam moo ko njëkk woote waaw ndax soo xoolee sax surtout ci weeru koor nga xam te ne yàlla day multiplier euh, tuya tuyaaba yi nga xool moom yàlla ni mu ko organisé d'abord mu ne ki nga xam te ne mag mag bi nga xam te ne daa daa màgget ba mënul woor Euh, jox ko euh, jox ko miskiin yi ñu dem ba si biir mu ne ki nga xam ne mu ñuy soññ nañu ki nga xam ne wóor na nga jël euh, nga jox nga jox ko lu xam te ne dogee na ko kooram yàlla da lay bindal tuyaaba tuyaaba ko ku am ku ku wóor comme comme boobu noonu. ñu foog ne foofu lay yem mu bàyyi ba ko gi waaye jeex des deux jours wala benn mu ne jël leen toll ak ñaari kilo si li ngeen daan lekk ngeen génnee ko mu muddum koor kon yaakaar naa ne ñëw na ñëw na lu bëri si alxuraan fa maa bi ni'mati rabbika euh, fa fa tabbir ak yu mel noonu daal maanaam ñoo lu bari si alxuraan ak yeneen daal maanaam solidarité tey bëgg naa man bokk su ma doon passé message damay naan képp ku gis lii wala képp koo xam ne euh, nekk nga si koñ boo xamante ne amul lii ngeen taxawal ko ndax euh, lii la lislaam bëgg surtout soo dee ndaw di dooree ci lu mel nii kon kooku yaakaar naa su màggee aussi ay xalaat na ñu gën a sori li nga xam ne mooy koñ yu bëri nii la ñuy def keneen ni ngeen def moom ngeen di def te li nga xam ne suñu tàng ñooy dëgg li nga xam ne mooy weeru koor dafa mel ndaw yu bëri dañuy teg li nga xam ne café li nga xam ne mooy si diggu koñ bi di joxe naanaam ñii nga xam ne dog da leen fekk si yoon bi tey ñeen ngeen xam ngeen ay jeunesse ngeen ku leen gis xam ne ay xale ngeen yow nag kenn du la ràññee si même réew ndax kuñ ne kuy sa maam rek ñu ne El Hadj Bassirou Diagne la grand serigne de Dakar léegi dañuy bëgg rek nga cofal ñu tuuti si li nga xam ne Euh, kii bi fi nga xam ne fa la kii bi jógee association bi fa la association bi euh, mun naa ne bii mooy suñu troisième édition donc il y a trois ans de comme ni ma ko waxee rek ay ndaw ñoo toog biir waxtaan xalaat ne mun nañoo organiser euh, di joxe ay ndog maanaam ci weeru koor xalaat gi ci ndog la commencé ba pare nag comme ni ko ñu bëri defee di joxe ay kafe ñun nag yemuñ ci joxe di joxe ay café kese dañ koy boole chaque weeru koor ah trois trois années yëpp. chaque année di joxe ay ndogu ay ay ay pain di si diw chaque chaque ça dépend nag si jour yi parfois ñu diw petit pois parfois spaghetti ça dépend café Touba ak yeneen daal ko defee ñu ànd dem seddale ko fii nii yëpp ndax weeru koor di nga gis koo xamante ne day woor ba dog jot am na xaalis waaye ndog fekk na si yoon bi amul lu mu dogoo nga dimbale ko di nga gis tamit koo xam ne mu si mbedd bi amul lu mu dogoo yow la yaakaar nga jox ko mu dogu kon yaakaar naa ne lu mel noonu yëpp euh, moo waral ñu toog nekk xale te la Euh, am diine te la laa xam sa diine loolu daal moo waral ñu fondé faqat faqat lillah euh, rien que daal maanaam faqat lillaahi lillaahi faqat lépp ci yàlla la daal. maanaam su ma la ak ñoo xam ne ñooy seetaan li nga xam ne à travers li nga xam mooy Dakar Midi maanaam turu tur boobu noonu en noof fu ko gars yi di ràññee loolu nga. Euh, faqat lillah lillaahi faqat dèjà soo déggee tur bi sa tur ci lillaahi lay dam man na sama xam-xam bu gàtt si kat appui laax foogoon. <laughs> non maanaam lillaahi daal lépp rek ci yàlla lañ koy def parce que xam nga association yu bëri na te ñu bëri ñu ngi def te yàlla taxul waaye ñun lu ñuy def yàlla moo tax soo xoolee bi mooy comme ni ma ko waxee bi mooy suñu troisième édition waaye mosuñu koo fësal waaye fësal bi nag du doon lenn loo xam ne tey suñuy moroom dinañ ci gis di ci dañ ci gis di ci roy parce que ñaar yooyu moo am ndax yonent bi salaay salaam nee na ki nga xamante ne day saraxe ak loxo ndeyjooram te loxo càmmoñam du ko yëg kër gi yomal xiyam kër gi ñu yàlla may foofu dina ci bokk ñu bëri dañuy naan suñuy def dara di ko fësal c'est parce que euh, dañoo bëgg wane ak yu mel noonu donc su doon loolu la wane nañ ko bu yàgg waaye soo xoolee lii daal yàlla moo tax ñu koy wax donc lépp si tur bi lay jëm lillaahi faqat maanaam lépp daal ci yàlla daal faqat lillaahi mais président ñooy ñëwaat si kanam tuuti noo bëgg waaw noo bëgg léegi sama caméraman dugg ñu xool gis nga li nga xam ne moom lay gars yi di génne dafa mel ni xéewal yaa ngi di xaar li xam ne mooy mais ku baax gannaaw bañ la nuyoo di la siyaar tey ñu gis ngeen génne li nga xam ne mooy xéewal bi nañ li nga xam ne mooy mbur yi nga doon dagg si biir ak yeneen ak yeneen gis li nga xam ne mooy joxe ndogu ak xaalis nga xam ne nu mu saxee si xol yéen ngeen ngeen di ay xale di ay jeunes génn li nga xam ne mooy ndogu. waaw bisimilah ñoo sant bu baax euh, su ko defee nag moom dañ koo tàmm di def rek dañ koy def rek te yàlla rek tax dañuy dagg di joxe ndogu ndax xam ne dëkk bi ni mel dañuy jàppalante rek. am na ñoo xamante ni seen doole jotul seen digg ginnaaw léegi si initiative boobu na ñuy demee di jàppale di jàppale ay nit euh, di jéem a pérenniser suñu activité yi dans le long terme. te dañoo gis li nga a ne ko ñu bëri ah, wala ah, ñi nga xam ne nit ñu bëri i nga xam ne noonu rek autour de Dakar ndog di la fekk si àll bi gis ak ko ñu bëri tamit gars yi dañuy teg anglais li nga xam ne mooy café di ko joxe yéen en tant que jeune te loolu leen digal ak loolu leen soñ ndaw yi nga xam ne dafaguñ ko. Euh, maanaam secteur boobu noonu daa xaw a daa xaw a complexe soo amul organisation euh, day xaw a métti léegi soo da war de am benn benn esprit de dépassement pour mën ko def tamit. Mhm. waaw ba léegi ñu duggaat si biir waaw dafa mel ni benn yaay faal laay jël mel ni benn yaay faal laay moom tamit ñu laaj ko soxna si gannaaw ba la nuyoo di la ziar depuis sànq ba léegi maa ngi lay gis li nga xam ne mooy si xéewal si mburu yi ak si ndox yi ak li nga xam ne mooy si waañ bi tey en tant que xale nekk jigéen di def lii ngeen nga xam ne moom ngeen def te ku xam xaalis xaalis nga xam xaalis dafa sax si xol tey ngeen yëkkati li nga xam ne mooy def ko te loolu la si wax. ah xanaa di kontaan rek di di sant yàlla itam di wax ni amaana yombul mais ah. mbégte bi moo moo ëpp solo lépp. Ah. xanaa di si woo ñëpp rek di wane ni initiative bu baax la képp ku si mën a ñëw jaam si yàlla mu def ko yàlla rek lañ si wut mooy loolu noonu. tey dama bëggoon a xam li nga xam mooy turu li nga xam mooy association bi ak bi lu ko tax a jóg ndax damay dégg naa ñu ne euh, bii mooy seen troisième édition ndax ku ne troisième édition du lu ndaw te ku ne troisième édition du trois jours. tey ngeen yëkkati di dem ndax am na ñoo xam ne ñoo nekk seen ginnaaw dinañ jàppale wala li nga xam ne mooy seen moyen bopp ngeen deme alors association bi dafa xalil laa la tudd maanaam def ngir yàlla tax amaana su dul koor gi sax dañuy def ay don si ay daara orphelinat ça dépend léegi wàllum xaalis bi affaire yooyu noonu ñun dañuy cotiser ku nekk si ñun fii ndaw ñi ñi si bokk ñëpp dañuy cotiser mais teewul suñu yaay dañuy jàppale suñu am di jaam dañuy jàppale itam mais ñun ñëpp dañuy cotiser wax dëgg yàlla voilà lu ñu bëgg def ñoo koy cotiser suñu bopp du ñàkk nag comme que ay xale lañ ñun ñëpp dinañ wut au moins ñu ñu jàppale ak yooyu noonu mais daanaka bëriwul dañoo gis li nga xam ne mooy koñ yëpp moom la ñuy def foo tourné si koñ yi di nga gis ñi nga xam ne ñoo ñuy joxe li nga xam ne mooy ndogu nga xam a ñi nga xam ne ñoo tëdd si lalu hôpital yi wala ñu nekk si nga xam mooy prison yi ah dëgg la moom dañ leen xalaat ndax buñ ne def ngir yàlla tax amaana ñëpp la ñuy xalaat waaye xëy na suñu doole fii la yemagum pour l'instant mais comme que en dehors de gi dañuy def ay dons dinañ gën a bàyyi xel ñooñu incha allah ndax loolu mooy suñu objectif. tey soo mënoon wax li nga xam mooy biti li nga xam mooy association bi tey. bitu li nga xam mooy association bi ak yan programme ngeen nar a tëgg en dehors de en dehors de def ay dons dañuy dem si daara yeeg yëpp euh, sax participer woon nañ si mooy loolu noonu ñun daal def def ngir yàlla tax moo tax ngir yàlla tax waaw ba léegi dañuy keneen tamit moom nag moo nekkoon si waañ bi nekkoon si vermicelle yi mbokku njaayeen ni wala sama mbokku jaañeen ni bu leen ma mer waaw waaw waaw ñu gis la dépp sànq ba nekk li nga xam ne ko gis li nga xam ne wax dëgg yàlla yëkkati ngeen li nga xam ne ay xaalis yu takkoo takku def ko li nga xam ne fas wax fi ngeen jaar ba tegal li ngeen teg doo fi jóge dëgg la man sax ba ma daaw laay doog a intégré association mais ba ma ko intégré ba vraiment ko parce que man di ñoo xam ne dama koy di ko joxe ci biti daf da ngay partagé daal sa joie Fadlila moom dafa nekk fii ni pour ñëpp ku bëgg a rek mën naa ñëw bokk ci groupe bi parce que famille lañ ay ndaw kese fi nekk amuñu parrain amuñu marraine amuñu dara dañuy jàppalante suñu biir mën a jël lu ñu am daal di ko ci daal di ko ciy def kon nag euh, moo ngi noonu tey moom dañoo def grand ndogu jéem a bégal sa jaay gi rek noo sant ba santoo Touré. waaw Ndiaye laa sant Ndiaye. <laughs> loolu moo tax duma la wax dara parce que yaa sama yaay yéen sant léegi moo ngi noonu képp ku bëgg a bokk euh, Fahadlillah mën naa ñëw ñun ñoo ngi fi dinañ ko accueillir incha allah. te da nga gis ndaw ñu bëri dañuy dañuy dañuy bëgg a dugg li nga xam mooy si saar yi waaye ñu xam fan lañ koy jaare waaye tamit dañuy gis ko ñu bëri dañuy def comme saar yi nii teg angle li nga xam mooy angle dafa kafe de maajaar lu ñu am wala lu waaye jox ñu jël ko jëndale ko waaye ku nga xam ne yéen da ngeen naa yëkk seen moyen bopp demee seen xaalis bopp est-ce que am nga ñoo xam ne nekk nañ seen ginnaaw di leen jàppale si li ngeen def ndax ku ne trois ans wala du du ndaw du trois jours du cinq jours du trois ans ndax ndax da ngay dajal ba at ñëwaat tey ngeen yëkkatiwaat defaat lii ngeen def. Mhm. ñun moom kenn nekk suñu ginnaaw dañuy dañuy dañuy booloo daal di cotiser parfois nag bu ñu ndogoo ba pare ñu def porte à porte jéem a expliquer nit ñi euh, association bi nu muy doxee wax leen ñu demander demander leen de l'aide ñu mën ñoo jàppale. mais à part ça amuñu amuñu si kenn ku ñu wékk suñu suñu suñuy ndog dañuy def rek suñu bopp parce que mën nga ko wékk ci nit ki te nit ki mën na laa bañ a euh, satisfaire du dañuy dañuy dañuy def loo xam ne ñun fa lañ tool ak loolu lañ mën ñu mën see mën see séddale ay ndog. tey looy wax ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg dugal li xam mooy si man man ma ko déggee sax man nag tur bee ma a yéem. faxalilaa waaw ah, faxalilaa moom ma njëkk a yéem ndaw ñi nga xam ne ñooy bëgg a intégrer li nga xam mooy si groupe amul benn problème ñoom mën nañoo ñëw intégré jusque genre dañuy kaf dañuy fo dañuy ree mais bu ñu gis loolu kese dañ gis que ni dañuy ñëw pour liggéey dañuy ñëw pour jàppale ñoo xam ne amuñu luñ dogoo certes tanewuñ leen mais quand même dañuy def ñoom rek léegi mën ñoom mën nañoo ñëw adhéré faxadillah amul benn problème ñun ñoo leen di xaar. bis ni ki tey adhéré naa. waaw kon baax na bienvenue. <laughs> ah gis nga dañuy xoolaat rek. leneen lu xewaat waaw tata ñu ñëw xool. tata il faut nga jàpp si mbir mi moom tamit gis ngeen moom tamit day daw xool. moom moo nekkoon si waañ waaw moom dafa bëggul feeñ waaw ah, moom mooy soxna soxna nan noo tuddati maam koddu moom moo nekkoon si li nga xam ne mooy vermicelle bi ay waay weeru sañ na mun na lu ne moo nekkoon nii xam naa sama mbokk njaayal ak sama mbokk ah, ah jaxate waaw jaxate jaxate jaxate yi nañ ma nañ ma nañ ma ree nañ ma simbi sama sama yaay ji moo nekkoon feeñ nga xam ne si waañ bi waaye bëggul feeñ mais dañuy jëlaat ñi ñi nga xam ne ñoo nekk côté bee rek waaw waaw jëlaat ñeneen ñi rek ñu xool na ma ko sama cameraman mu jël lii lu nga gis depuis sànq bale mu ngi si liggéey bi di dagg li nga xam mooy mburu ku baax soxna si ah, munoo di nga wax nag ndax ndax ni nga. poos liggéey bi daa bëri. liggéey maanaam li ngeen li ngeen def ni il faut ñu laaj leen ko ndax kii def te yàlla sax ndax il faut am nga yéen moo yoo xam ne moom ngeen def ndax li wax dëgg yàlla ku gis li xam nga passé na ay ay Ah, nee moom mënul wax waaw ah, mën na lekk gis na affaire yaa ngi ni waaw ñooñu toog ak sama lakkale ba ma njëkkee ñëw moom moom mu wane doo doo fi lekk moom xam naa Ndiaye la sant soxna si gannaaw buñ la nuyoo di la ziar tey ñu gis la li nga xam ne dépp sànq bale ñu ngi la gis li nga xam ne mooy si liggéey bi tey lan nga ñuy wax ak yan initiative ngeen euh, tëralee lii. mun ma mbay wuyul. kon ah mën na mën na jigéen ñoo dàqale ko waaye du ñu wax. والأمام بكم قياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي حسن احترام جاد لنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلام وكل شيء والكتاب ندام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا غايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بذنب تبت لربي زاهرا بذا الندام لك وقبله وقمت بذام تبت لربي زاهرا بذا الندام لك وقبله عبوت بذام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير أحمدنا مختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام من ربيا كتاب أحمد سواه نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى أمن يبقى سيدنا محمد للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم من إبليس لبق عليه صلى بسلام صرمدا في الآل والأساب وكل حمدا للمستوى المصطفى للمصطفى لدى dakaan الواحد نور ينير قلب غير جاحد Midi gannaaw ba leen nuyoo tey fii nga xam ne mooy Scat Urbam ñëw seet nga ay xale ay benn association bi nga xam ne ñoo fi organisé li nga xam ne mooy ndogu dañ taxaw ki nga xam ne mooy président waaye ki kii taxaw nag kenn di ko présenté si mim réew ndax soo nee surtout maam Bassirou Diagne rek eh, wër na Ndakaaru mais dañ koy bàyyi mu nuyoo rek ñu waxtaan gannaaw ba ñu joxe li nga xam ne mooy ndogu bi ak li nga xam ne moom lañ ciyee nuyu nañ la. Eh, bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eh, mbokki jullit yi mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu képp ku ñu seetaan à travers. Medina TV Dakar Midi euh, voilà donc euh, ñu ngi leen jaajëfal bu baax si seet bi vraiment gis nañ seen taxawaay aussi bu baax bi ngeen si am yaa ngi tooñ naan xaaju euh, Bassirou Diagne kooku de comme ni nga ko waxee kenn dootu ko présenté fii suñu réew ndax lu baax tey te mënoo tudd social mënoo tudd solidarité te doo ko tudd vraiment te moom daal xam naa ne suñu suñu royuwaay la kon association bi comme ni nga ko gisee rek faxat li la association la boo xamante ne ay jeunes ñoo ko taxawal ay jeunes comme ni nga ko gisee sax mun naa ne ay élèves lañ ñooy boole lu ñu am ak lu ñu amul euh, pour dimbale ñi nga xam ne seen loxo jotul si jotul seen ginnaaw euh, ci weeru koor chaque jour ci koor gi ñuy joxe ay ndogu dañuy joxe ay pain chaque jour presque ak li ñuy diw si pain yi du bokk donc euh, ak ay kafe ak yu nu mel tey nag dañoo dañoo doon organiser grand ndogu nga xam ne dañoo yokk suñu loxo lool joxe fii yëpp fa tabarakallahu def na defar nañ ay caakiri defal nañ ay vermicelle ak ak ginaar euh, ay jus vraiment daal def nañ def nañ lu bari daal pour jaamu yàlla yi ñëpp euh, ndog ak yu mel noonu ndax ci weeru koor lañ nekk te weeru moom dañ siy profité rek jaam si yàlla ndax yàlla day multiplier tuyaaba yi euh, fa tabarakallahu daal xam naa ni loolu daal mooy faxal li vraiment te di wax rek que ni social daal mooy lépp yàlla dafa ñoo dimbali pour ñu pour ñu dimbalante ndax muslim akul muslim jullit jullit mooy mokkam tey tey lu benn mën ñaari ñoo ko ko dàq donc pour man daal bépp koñ boo dem war na am ay jeunes yu mel nii yoo xam ne dinañ pare pour dimbali seen quartier wala euh, si dëkk bi nu ñu mel ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bépp quartier boo xamante ne am na ku fay yeewoo ba guddi jot te amul lu mu lekk ngeen seeraan ko yàlla nee na sama kóllëre ak kooku jeex na kon lu mel ni dina tax ñu mun a organiser wu bokk jaamu woon yàlla ensemble vraiment te dañoo gis ne ren mooy seen nga xam ne mooy troisième édition est-ce que mën naa xam ne fii la nga xam ne moom la association bi tàmbale est-ce que si ñëwal tuuti. waaw euh, association bi fi mu tàmbalee faxali la euh, comme ni ma ko waxee rek il y a trois ans de cela ay ndaw yu gëm seen euh, diine ay ndaw yu bëgg seen gox soo xoolee mun naa ne nag ñi si ëpp fii lañ dëkk ci Scat Urbam moo waral sax d'ailleurs siège bi nekk fii nii donc fii la ñuy amalee suñuy activité bëggoon nañ nag dina ci weeru koor bi. maanaam chaque jour dañuy dañuy joxe ay ndogu ci koor gi bëggoon nañ nag di dem di euh, seddale si yeneen quartier yi mais dafa fekk ne euh, te am na ñoo xamante ne ñu ngi si koñ bi chaque jour suñu la ñu yaakaar pour ndogu donc su tey suñu day joxe ndogu chaque jour ñu xëy dem feneen ñoom dinañ leen lor moo waral ñu toog samp chaque jour la ñuy joxe suñu ndogu looloo waral daal xam naa ne mais faxat li laa la boo xam ne nekkul joxe ndogu kese mooy euh, suñuy objectif am nañ yeneen objectif ndax soo xoolee yaagul dara bu ñuy def désherbage fële ci armée lu Yoff Euh, demoon nañ fa jàpp si liggéey bi euh, amoon nañoo yéene amoon nañoo yéene aussi dem ci euh, prison mineurs yi for be def fa suñuy don waaye loolu sax daanaka mujjul woon am waaye seulement pour vous dire que ni suñu objectif ak suñuy xalaat sori na bëgg nañ aussi dem ci quartier yi village non yi nga xamante ne seen seen loxo jotul seen ginnaaw yu mel noonu dem dafa ay don hôpitaux yi ñu feebar ñu jàppale leen bëri nañ daal suñu yéene daal vraiment mooy dimbali néew doole yi ñu seen loxo jot si ginnaaw ndax looloo tax yàlla sàkk ñu pour ñu dimbalante vraiment euh, te jullit moom yaakaar naane ne daal moo war a nekk objectif am principal ndax soo dee xool sax bu njëkk ba mag ñi dañu daan def su euh, réew mi xiif amaane dañ doon wax naan képp ku képp ku nekk rek sa kër lu fa am rek génnee ko ki yor 5000 francs mu indi ki yor 1000 indi ki yorul du indi su ko defee ñu jël xaalis bi yëpp dajale ko euh, séddale ko ba ñëpp am loolu dina tax ki amul woon dina am dina tax ki amoon ba naroon beew wala ko amoon lu bëri nara a beew doo dootu ko yóbbootu si beew bi ndax dina indi lépp ñu se ñu ko tolloo donc daal loolu daal xam naa ne moom mooy faxali laa daal vraiment loolu daal mun naa ne su ma ko doon tënkal rek mun naa ne loolu mooy faxali laa daal daf te yàlla tax. waaw dégg nga comme moom loolu mooy faxali laa mais dañuy wax rek euh, ku leen gis xam ne ay ndaw ngeen ndax ku leen gis xam ngeen yéen xëyoo leen wala ñu si am xëy nag dañ leen di compter est ce que amul ñoo xam ne dañoo nekk seen ginnaaw di leen jàppale waaye li nga xam ne seen moyen bopp ngeen jëfale li nga xam ne mooy ndog yi. waaw jërëjëf xam nga vraiment loolu aussi euh, lu jara wax la parce que tey soo xoolee comme ni nga ko gisee ay xale lañ man mii sax mën naa ne ci jàng laa toll euh, te ñoom élèves yi dañuy jàng ba wàcc suñ paree ñëw ñuy nekk si togg bi ndeysaan ñuy nekk si majal bi ñu nekk si si kafe gi te day neex quoi ku ci nekk deux mille francs boo am sànni si 5000 francs boo am sànni si noonu la ñuy def daal ba am lu ñu am. du ñàkk nag suñuy quelques grandes sœurs wala parfois euh, porte à porte ñuy def fii si dëkkandoo yi wala yu ñu mel wala ñu mel noonu daal parfois daal du ñàkk am ku ñëw indi xaalisam wala ku ñëw indi sax benn somme d'argent nañ dama koy def ci sutura def ko ci yu baax yaa ngi ci réew mi daal vraiment te aussi ñu siy profité di wax képp koo xam ne bëgg na jaamu yàlla ñu ngi koy euh, woo mu ñëw si association bi Fakhalillah ñu ànd jaamu yàlla bi képp ku am loo xam ne mën nañu koo jàppale mu jàppale ñu ko vraiment kon daal pour euh, pour tout vous mun naa ni ñun suñu bopp ñun ñooy génnee suñu xaalis bopp euh, chaque fin du mois am na lu ñuy cotiser euh, su weer koor bi jot aussi am na lu ñuy somme bu ñuy génnee ak si jour mel ni tamit jotee am na lu ñuy génnee vraiment daal kon xam naa ni loolu daal noonu la ñuy defee suñuy suñuy distribution ak yu mel noonu. waaw dëgg la kàddu yi am na solo trop. mais da ne association te ku ne association dafa bëri li nga xam ne mooy ay détails te xale ngeen ndaw ngeen. te association am na association yu bëri si genre yi nii lañuy lañuy la ànd wala si genre yi lañuy ñuy tàkkalti ko est que yéen a ngi bàyyi xel loolu noonu yéen ni nga xam ne ay ndaw ngeen waaw xam nga ay ndaw lu ñu bokk rek su yàggee euh, dafay indi ay réeroo wala caaxaan day dugg ndax ay ndaw lañ looloo waral yàggul dara ma euh, ñu ngi doon xool lu ñu utee ay oustaz par exemple am na am na ay ñaari oustaz yoo xam te ne ñu ngi suñu group ñu ne leen dañ fiy dugg pour tey su fekkente ne ñu ngi ñu ngi nar a euh, yoon bi def naka su dul noonu wala nar a jàdd yoon bi ñu teg ñu si yoon bu baax bi mais nag réeroo mënul ñàkk fenn association boo doon tey du ñàkk par exemple ay réeroo yoo xam ne dafay am mais waxtaan rek mooy defar lépp te yaakaar naa ne benn but bu ñu am mooy jaamu yàlla te jaamu yàlla su amee moom fu mu am réeroo waru faa am waaye réeroo rek mënut a ñàkk waaye su su amee it dañuy jéem a xool lu ñu waxtaanee ba jubbanti rek daal di ànd ndax ay xarit noonu la ñuy àndee yenn saa ñu xulloo xeex suñu paree ñu sang àndaat waaw waaye daal leen daal moo koy maye bu ci jiitu mooy yar yar nag mun naa ne bëri na façon ndax mun nañ la yar mun nga yar sa bopp comme mun nga génn ñu yar si mbedd bi wala euh, euh, yeneen yar daal comme si prison beeg yu ñu mel su weesoo weer woowu euh, orientation wala sax mun naa ne royuwaay d'abord ndax roy royukaay tey moom moo jafe nit ñi dañuy jékki dañuy roy ku nekk surtout suñu jeunes jeunes yi léegi dañuy gis artiste bu solo rek ñu solo ku waay rek ñu waay wala sax ñu wax wax ju bon ñëpp def ko challenge euh, dugal ko ci ci TikTok yeeg yooyu noonu di ko toppandoo est-ce que ñooñu la ñu war a roy vraiment donc royuwaay soo amee royukaay bu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul xaaj ma Malick si di roy ñu mel noonu vraiment kon di nga avancé bu si des mooy orientation ndax moo lay mën a gimmi si lu baax di def lu baax ak di defal ñu baax ñu lu baax su ko defee dimbali miskin yi ak faqir yi solidarité moo dugg vraiment. solidarité moo ma comme nu bañ a téye lu bëri ndax la gis xam ne ndaw. ndaw yi nga xam ne ñoo bëgg a dugg ci li nga xam ne mooy ci biir association bi ak nan lay def wala fan lay jaar pour intégrer li nga xam ne mooy association bi. waaw suñu siège mu ngi fii si Scat Urbam si euh, wetu rond point HLM Grand Yoff bi si tout près du euh, boulangerie euh, ISRA. donc am nañ aussi ay numéro vraiment actuellement nag jàpp moo suñu numéro yi ñi nga xamante ne mooy mais mun naa jox sama numéro rek pour le moment muy 77 408 64 26 moom suñu. Euh, chargé de communication la mun na jox numéro après wala après ñu def ko ci affaire bi mm-hmm. vraiment donc euh, ñu ngi aussi ci plateforme yi am nañ compte Instagram Fakhalila euh, am nañ compte Tik TikTok bon TikTok de parce que ñun suñu affaire dañ koy bëgg di fësal sax dañuy def te yàlla tax rek dinañ gis sax parfois koo xam ne feebar na ñu jël photo am nii di ko di di ko partagé ñu jël ko dugal ko ci groupe bi am lu ñu ci def mais yooyu yëpp lu ñuy lu ñuy sutur la rek xam nga parce que aussi nooy profité di wax benn affaire mooy nit ñi léegi dañuy jaamu dañuy euh, def lu baax ba pare di ko siiwal à chaque fois te siiwal boobu noonu mun nekkul lépp la ñuy siiwal am na koo xam te ne yaa ngi koy jox mais bëggul nga bëggul see feeñ wala maanaam bëgg na nga suturaal ko ndax yonent bi dafa wax laa yasura laa yasura abdun abdan fi dunya illaa satarahullah yawmal qiyaam kon sutura dafa am solo ci ki nga koy defalal def lu baax ak ni nga koy defee nekkul ko koo war a defal lu baax rek da nga koo war a filmer loolu ñu bàyyi si moo tax donc daal suñu siège mi ngi fi mi ngi fii si HLM euh, H&M, HLM Grand mun ngeen ñu aussi euh, suivre ci euh, page yooyu noonu am nañ Facebook yooyu noonu yëpp daal ku si dugg dinañu gis incha allah ak yeneen nga xam ne nañ ko créé. avant tout yaay Fall mu sànni si quelques cadeaux rek soxna li nga xam ne moom ngeen yëkkati def ko nouveau TV yi nga xam ne mooy Scat Urbam te ngay ndaw di xale def li nga xam ne loo xam ne mag yi sax duñ ko def yéen xale yi ngeen def ko tey yan yan jàngat nga gis li nga xam ne mooy si jox ndog. ñun de li ñuy certes soxla nañ ku ñu jàppale mais des fois duñ si xaar dara dañuy yëkkati ñun suñu propre alalu bopp wala comme ni nga ko gisee des fois ñu màndial nit ñi suñu amee ñu jox ñu des fois dañuy teg sax café ñëw duñu am mburu gu ñu diw pour jox ko jaamu yàlla mais da gis benn nit ku baax ñëw andil la saako mburu wala ay pain au lépp ay mbiru yàlla la donc ñun dañ koy gën a continuer di ko def ndax ñun ngërëmu yàlla dong lañ si seet. waaw dama gis en tant que ndaw te koñ yi bëri dañuy joxe li nga xam ne mooy te yéen a yéen nga xale est-ce que jiite li nga xam xale yombul moom parce que des fois tamit ñu am ay problème suñu biir mais dañ koy jéem a régler xam na ne que ñun jaamu yàlla moo ñu fi andi dañ koy def ñun ay histoire yooyu noonu sax parce que dañoo am si lu ñuy dox te foog ñu eggale ko. te mën nañu xalaat li nga xam ne mooy association si beneen ah, anam wala si yeneen si yeneen rencontre wala si jeneen li nga xam ne mooy social. ah loolu de la ñaan yàlla ñu dégg ñu fu nekk ndax ñun li ñuy def jaamu yàlla yee tax. ñaan nañ yàlla ñu ñuy dégg fu nekk muy camp pénal di rëbës loolu lañ ñaan yàlla en fait nit ñi duñu dégg fu nekk ñuy gën a dimbali néew di doole yi. Baba Moussa Diakhaté président leen kàddu ngay dénk li nga xam ne mooy euh, jeunes yi ak li nga xam ne ak ñi nga xam ne ñoo leen jàppale ak yan quelques remerciements ngay remercier. waaw avant tout dama leen di remercier yéen kontaan nañ bu baax si taxawaay bi ak euh, seet bi ngeen ñu seet si vraiment. di remercier rek ñoom ñi nga xam ne ñoom laa bokkal association bi te tey samay wax may wax ci seen tur euh, di kontaan bu baax ci taxawaay bu ñu ci am ku ci nekk vraiment yombul dañ leen di encourager ay ndaw lañ dañuy bàyyi seen école tey sax ñu bëri jàngiwuñu ñëw pour def lu baax te yàlla tax kon remerci remerciement bi ci ñoom lay njëkkee di leen encourager ci li ñu nekk ndax islam ay ndaw ñoo ko taxawal ñu jël leen ñi ñoom ñoom ñoom maanaam saxaaba yi ñëpp xam nañ seen histoire vraiment kon su dee ndaw yooyu noonu tey nga xamante ne ñoom ñoo nekk avenir ëllëg ñoom la ñu gis tey ñuy séddale ay ndogu yaakaar naa ne mun naa am euh, mun am yaakaar ci ñoom ëllëg kon remerciement bi si ñoom lay tàmbalee vraiment ak képp koo xamante ne yëkkati nga sa alal lu mu ndaw ndaw daf si euh, vraiment ñu leen di sant bu baax di leen gërëm euh, yaakaar naa ne daal li may dénk ndaw yi nag moom mooy li may dénk sama bopp sax d'abord muy fonk suñuy wayjur ndax àjjana taxta taqdaami ummuhaa àjjana mu ngi suuf tànk yaay kon ak lépp loo munti def te respecté woo sa yaay bul sonn mook zéro ñoo yam kon nañ fonk suñu yaay ba pare su dee kuy liggéey la mu fonk liggéeyam su dee élève la mu concentré wu ci njàng bi xanaa sama mbokk góor yi aussi euh, di leen ñaax rek suñu moytu jigéen wala ñu moytu genre affaire yu mel noonu ndax bokk na ci lu gën a mun a yàqal jeune daal vraiment loolu daal xam naa ne mooy li may dénk sama moroom jeunes yi te ñuy œuvrer aussi si si social ndax social moom yaakaar naa ne mooy lépp vraiment kontaan naa si yéen bu baax. waaw maa ngi gën a kontaan avant tout damay remercier ñëpp ñi nga xam ne jàppoon nañ si liggéey di remercier ki nga xam ne mooy Bachir. ne ko sama xarit la sama lépp la maa moom dañuy waxtaan foo xam ne kenn nekku fa di leen ne lii ngeen nekk sax leen si dàq ndax social moom yàllaa ko wàcc suñu suñu suñ suñ biir ndax nit am na ñoo xam ne nekk nañ fa xam ne amuñu ku leen dimbali. te nee naa lépp loo leen nekk wala lépp loo xam ne association bi nekk na si rek maa ginaaw ndax yow loo woote rek ma daal di ñëw dinañ jox dig daje beneen yoon waaye du ma nuyu dama nuyu ki nga xam ne mooy sama cadreur bi nee naa ko Amina nee naa ko loo cadre bu baaxul waaye di remercier képp koo xam ne jàppal nga si liggéey bi rek maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax dinañ jox dig daje beneen yoon incha allah jaaraama